les gens se font maintenant une religion Mame na ko en partie ñun folli la ñu mën kii bëggatuñ ko mais kan lañ fiy teg c'est ça le problème donc boo naree indi wàllu programme tey jii kan moo lay déglu <laughs> teel na pour man programme teel na en tout cas. parce que les gens également ñoom dañuy ku ci nekk da ngay épier sa morom ragal nga sax nga génne sa programme après ton adversaire ou peut-être futur adversaire ou adversaire présumé. copie collé copier la plagier la. copie ko copie collé ba pare gën ko kii nag. est que kon nag askan bi ñor na leen. et puis ñun suñu ñu si bëri 80 pour cent yi ñoom seen bopp lañ moo leen intéressé. may laajte doom seen intérêt kese la. damay laajte doom kenn ma toog kese la. kenn rek laay gis programme bu leer nañ. mais malheureusement est-ce que le message passe je crois que il commence à passer kenn rek. kenn la mooy bugaan. gëm sa bopp sa bopp. teg na ay ponk de. gëm sa bopp au moins. en tout cas jëm naa proposé. moom au moins il n'a pas il n'a pas il n'a pas peur de dévoiler ce programme. non il te dit que je ne suis pas un politicien professionnel alors qu'il y a des gens qui n'ont que ça comme profession. Ah. amuñu leneen. <laughs> voilà donc je pense que côté boobu il faut que les gens aient un peu une clairvoyance. Mhm. politicien professionnel. Mhm. moom daal tant que amul ndombo tànk bu mu dara. Mm-hmm. alors que lui n'a pas besoin de ndombo tànk pour vivre. l'espace public voilà. l'espace politique est tellement bruyant. waaw ku fi génne programme kenn du la dégg. mais am na Mary Teuw Niane mais kenn du la dégg. Mary Teuw Niane mouvement pour la transformation nationale. il faut des réformes. loolu lay. très bien bon bref. am na si ñoo xam ne nañ matière grise. bu mm-hmm. bëri malheureusement. matière grasse si boppam ñu pour ñu politique ba nga xam ne kenn mënatul kenn mënatul xam kii kii. ci arène politique bi ku si nekk à sa intérêt. Hmm. walaay ndeysaan. doy na ngay gis koo xam ne da ngay jege askan wi. nu ngi koy wax sànq peut-être bugaan lañ lañ euh, euh, euh, lañ ci gën a gis. moom woote na séddoo coono yi day dem si askan wi fekk leen gis leen seen hmm. problème mu am lu mu ci taxaw mais xam nga kooku au moins gis nañu ni mi ngi mi ngi nekk ci askan wi. mais di nga fiy gis politicien boo xam ne du wax mukk si discours am lépp loo nga xam ne la mu lay wax intérêt am loo xam ne ni askan wi dina si giseen bopp intérêt rek dafa bari ci politiciens yi fi ne daf fi bari muy pouvoir comme opposition daf fi bari bu leen fàttali nag le 14 moom mooy les grands travaux de Medina Baye en direct lay doon ci seen TV mm. euh, waaw Medina Baye mm. te seen grands travaux yi mm-hmm. euh, Baye Ciss ñu koy nuyu bu baax mm-hmm. euh, ñoom mooy conduire travaux yi donc nag asma il faut ñu dem wax a toog ak moom expliquer ko sama nijaay la bu ma xamul ne Ibrahima Ba non mi ngi lay moom du tardé matin ne ko doomu Ibrahima Ba. waaw dé dégg nga ci. donc euh, en direct lay doon ci euh, Sen TV def leen noonu ni ko tuubaa defee. Touba ca kanam. Tivaouane di liggéey dëkkam. Euh, mhm. noonu la ko waa Medina Baye di defee. dañoo bëgg voilà lancé nañu collecte. finition la grande mosquée la mosquée voilà c'est dirigé par Makhtar Cissé askan wi fu mu nekk ñoom ñoo de différentes confréries même venir contribuer parce que Sénégal mm-hmm. on a besoin de état Un lieu de culte, c'est pour tout le monde. Et on a vu que hier, euh, Victorine Day, euh, la mairesse, euh, je pense, moom moom tamit samp na ndëndam ci tabaxaat ju l'église bi nekk fële Nord Foire. voilà donc ku nekk defar sa gox. c'est comme mhm. ça. ñoom waa Medina Baye noonu la ñu def nee dañu bëgg tabax seen gox. ñu Medina Baye. léegi nag paak bi Fabrice suukar mujjee na am. Ah, am na suukar. ngalax am na. très bien. waaye am na sama mbokk yu bëri yoo xam ne amuñu woon mburuf. mburu moo manqué woon. boulangerie dañoo tëj liggéeyuñu. wax ah, tamit nag férié tamit nag Pâques bu amee. déedéet waxuma férié sax waaye ñu sóoraale ne catholique yi sax dañuy dem fet nañ leen lakkal mburu. Ah, mooy yoon nag. Ah, mooy yoon mooy yoon amuñu mburu parce que boulangerie en fait ngoon si la ñuy donc boo soxlaa mburu bi la wax nga dëgg wax nga dëgg wax nga dëgg. Ah? mburu mi dinañ ko xalaat. boo gën a xalaat ñu lakk bëccëg ñu ñu bëri waa Thiès kaas nañ ko. ndax mburu ñëpp mburu am na ñoo xam ne gis naa dox nañu ca dëkk bi ba sonn amuñu mbur. Eh, non du yoon na. mais mënuñ koon jënd que tàngaayu fuur bi ni de bëccëg. mais loolu jënd fajar wax ka lekk ban heure. gars yi dañuy lakk ngoon pour ndogu après dem tëddi. ah non mënoon ngeen fajar fajar c'est ah, conservable. mënoon ngeen ko programme noonu. nañ ñuy sóoraale nag beneen. ci la bokk ah ñu yegg ci kaw tribune bi waaw yéen kaay groupe euh, de médias tribune yéen kaay dafa ñëw ci liñ doon wax naa waxtaane sànq fu mu nekk Idrissa Seck wax fa dëgg neex yàlla waxul ni dafa ndax ak Macky waxul ni àndul ak Macky mburox soo mi daal en tout cas ñëpp moom moom moom moom loolu umpul kenn mm. ni mburox soo maa ngi tege ndax forox naam foroxul ndax dañu koy tuur am déet am dañuy boole naan lu mu ci manti doon yéen kaay bi nee na Idrissa Seck mu ngay def ay manœuvre am fu mu nekk nii boor bu nekk mi ngi teg ay pexeem mi ngi teg ay dilam mi ngi teg ay waxtaanam te loolee nag dafay firndeel ni kon présent Macky Sall ndekete yow adversaire am du kenn ku dul Idi adversaire am du opposition bi du Bougane du Sonko du kenn ndekete yow adversaire bi nga xam ne moom la am tamuy danger dëgg moom mooy Idi ndax Idi li muy togg di kat bés bu sottee mag Macky dana jël loxoom dana dar gémmiñ ndaamal Kajoor ndaamal Kajoor ndaama mii nee nañ ndaama fu mu nekk li muy togg nii Macky bu ko xamoon <laughs> Macky bu ko xamoon dana këpp cin li du samay kàddu de yéenekaay bi di groupe bu dee média moom moo ko wax te nee nañ ne wax fa dëgg neex yàlla ànd ànd neex na tàqalikoo tam euh, bu jotee rek nanu ko def koo bàyyi mu dem ak mbaggam mm-hmm. te ñaar ñii tôt ou tard ku nekk jël sa yoon lay mujj mm-hmm. bien boo ñoom ñu xam ko askan wi la ñuy jéem a bluffé nii rek ndax daanaka fu mu nekk nekk am nga nooy xoolee sa sa sa sa kon nag ku si nekk nii bu jëlee yoonam bu mu leen bett tôt ou tard dafay am ndax dee nañ clash bi si boppam dañu ko différer rek waaye day am mi ngi ñëw ci kanam ñoom ñaar ku nekk jël euh, sa sa sa sa yoonu bopp. benn plan la ñu tegoon parce que am na yéen kaay bu ko doon wax ne protocole ba nga xam ne defoon nañ ko sa Touba maanaam euh, dangay falu après man su ma ñëwee gunge la nga daal di may xajal ma ñëw toog. <laughs> daa mel ni loolu ci boppam bu fekkoon am na président Macky Sall daf bëgg génn indi ne ko déet dama lay yóbbu vaar. ndax li lañu waxante woon. protocole yi bëri nañu de. protocole yee sàkkan ji réew. protocole yu Touba. Masalikul Jinaan. protocole Doha. ah avant protocole Rebeuss lépp ci protocole. mbaa du réewum protocole la nu ne. ah le président Doudou Wade du ne ko protocole Rebeuss am na. en tout cas lu mu ci man doon ñoom nee nañu wax fa dëgg. wala la ñu waxtaanee woon ngir moom mu wuutu ko. wala protocole protocole gas nañ ko suul. xaw ma ñoom ñaana kan moo ko ci gas suul. waaw Mbacké gas suul wala idée gas suul lu mu ci manti doon en tout cas moom da doon xaar pour wuutu ko succession boobu échec la def. jamono joojee nga xam ne ñu ngi naan ànd nañu wala ànduñu li leen jaaxal li jaaxal Sénégal yëpp mooy dañoo gis ndaamal Kajoor gàddu ay jigéenam di waa réew mi. waaw dem uyu ji. audience su président Macky Sall sa palais xanaa ñaan ñi ñëw aay. waaw waaw ah. politique dañuy xeex ci kaw di ànd ci suuf ñu bëri jàpp na Yankhoba Diattara bu fekkee nag eh, eh, gome nañu ko ci ndombal tànkam c'est parce que dafa joxe position ci troisième mandat bi da cee ànd mu daal di koy sanctionné hmm? waaw kii sanctionné ndax loolu est-ce que mën nañu wax ne jubboo na ak diw. Diattara daa def une faute politique. waa parce que biir secrétariat réew mi ba ñuy ndaje. gars yi dañuy woon bu kenn wax waxi mandat te wax ji jotul. Mhm. moom mu génn wax ca. waa ne ko kaay. kaay waroo wax sutur gome naa la fii teg naa. est-ce que ne parce que il est passé derrière pour di wax ko. ah billaahi. léegi avec Idi tout est possible. waaw de daanaan la de Idi. daanaan la. a Idi lii c'est les enfants de Ndiombor. avec Idi c'est des Ndiombortons. tu as entendu beneen a ngi di Fada aussi sànq ah mi ngi yëngu. samp na ndëndëm Fada bu dul Fada samp na ndëndëm. nee na il est candidat. ah waaw waaw Ndiomborton. waaw en ba mu àndeex ay jigéenam dem seeti ji par exemple Macky Sall nee na ko gongo am nga sama gërëm am nga sama ñaan yow ndaama tey laa la gën a téye jàppal cinquante millions ngi nii joxal say jigéen mu daal di génne vingt cinq moom bu génne vingt cinq teg sax xanaa kon soixante quinze génne na macha allah ay millions paas paas tegal leen ci ay billet avion paas kese nag billet ah, wala Rome <laughs> wala Rome ah, ku man ñoom enveloppe bu nekk en état de grossesse très avancé très neuf mois et poussière. boo xefee ñu def césarienne. boo xefee ñu def césarienne. waaw. ah mu teg ca vingt cinq millions soixante quinze millions. waaw yóbbal teg sa ay billets d'avion. doo wax ak si man ñaar ñi dañoo xuloo nii. bii xuloo neex na de. man bu fekkee nii la ñuy xuloo man man bëgg naa man ku xuloo man. kaay ñu xuloo nii <laughs> bu fekkee nii la ñuy clash. nañu clash léegi nag ci mii bëgg naa. en tout cas Mamadou Gueye. yéen a gis xuloo man gisuma xuloo. jubóo la de ah. non dama ne xuloo yàmbaa la. kenn du dem pël xuloo ñu xanaa maam man na leen àtte. xuloo yàmbaa maam moom xam naa dina fier ci élément bi ba léegi ba léegi maam moom waxul pip. lu muy wax. boo yoree say élèves tey nga xam leen bu baax. wax macha allah. maam du wax. njaag bu mag alkaali Massamba. Mamadou Gueye directeur bu demee nee wax fa dëgg neex yàlla coowar suuf fii ci réewum Sénégal faw coow daal di say am mm-hmm. coow suuf moom gérer suuf fii foncier bi mm-hmm. faw coow daal di cay am mënta ñàkk jamono joojee nga xam ne ñu ngi waxtaanee wàllu politique ci diggante Idi Macky nga doxantu ba ca Fatick Fatick ci boppam jàppale ne kon waa àndu nawle neena ñu président Macky saal gestul sa dëkk mm-hmm. kuy tukki daa fekk sa dëkk neexul bu fekkoon sa dëkk neex ñu ñun duñu tukki Fatick sonn nañu Fatick damm nañu fan Fatick ta taay nañu ñàkkum ndox sa Fatick ndaw ñaa ngay tambaambalu di utu ku nekk foo jaar. ndax lan amuñu dërëm ah di dawal Jakarta di tol tolaan hmm. nee na ñoom Matik maa kii boo fàttee la la fal sa tolleeku day gaaw démb Fatick la woon hmm. geesul Fatick ndax Fatick sonn nañu waa ànd nawle ñoom ñoo xam ne loolu waaye nag waa ànd nawle dafa mel ni kon Bamba Sarr leen a tontu de ci l'exclusif Bamba Sarr nee na nawle mi ngi nii ban Fatick ngay wax xanaa du Fatick moom bi mu demoon barki démb boo Ndiaye moom Bamba Sarr directeur de l'artisanat mhm. nee na Fatick dem nañu fa ndaw ñu si boppam gongo la ñu wax Macky la ñu wax Bamba mooy tontu nee na ndaw yi Fatick fu mu nekk nii woote nañu leen ngir ñu mobiliser wu mën a dem bindu ji tey la ñu gën a topp ci ginnaaw président Macky Sall ana moom mooy borom Fatick bu bees moom mooy borom Fatick bees bi waaw nee na Ba moo ko dalal chef de cabinet bu président Macky Sall waaw ñu toog waxtaan ñu dajale waa COGER mhm. waa maire ak mboolem mouvement bu nga xam ne ñooy taxaw président Macky Sall mhm. kontaan nañu si moom de nee na ko moom Bamba Sarr nee na ko fi mu nekk nii Fatick fii mokk na rumbux mhm. ndaw ñi moom la ñu wax dem nañu bindu ji fu mu nekk nag foofu xel dal na noonu la tontoo waa nawle l'exclusif ñëw ci jamono jii nga xam ne sa Kër Massar ñoom ci boppam nee nañu ànd fa nekk fa waa Pastef moom wëratu mm-hmm. loolu moo tax nee nañ jóg sa ba mu teelee teel a takk seen i dëbës te daw ñaar ñoo takk seen i dëbës wan ginnaaw waa Pastef dañoo démissionné muy premier adjoint au maire bu euh, euh, Kër masaar ak responsable des femmes yu Pastef li lañ wax nous allons accompagner le président Macky Sall dans la perspective de la présidentielle de 2022 kon ñoom teel nañu takk seen i bagages dem nañu uti feneen teel nañu yëglu teel nañu teel nañu dem waaw nee naan nee nañ teel a nangu day yombal ay duma du samay kàddu yéen kaay bee euh, moo ko wax ñu euh, jàll ba tey ci actualité bi euh, jamono joojee nga xam ne ñoo nga wax Idi ak ah, nag euh, euh, euh, ak président Macky Sall Abdourahmane Diouf nee na amul hésitation amul dara lu nga xam ne ni warees naa mën mais waa réew mi ci boppam bu ñu amoon kenn ku ñuy jàppale moom la war a doon moom mooy borom awale sama mbokkum tëngéej bi tuuti wax jëf lu bari bopp bee baax alors ah, côté boobu moom amul moom Abdourahmane Diouf ah waaye Tawféex Abdou sa tëngéej c'est un crack bopp bee baax mm-hmm. yéen bi dañuy organiser ay ndogu débat si lañ ko dalal. mu waxtaan ak moom ci actualité politique mu xamal leen ne profil bu baax bi moom la. j'ai donné à Idrissa sec mes plus belles années en politique je considère qu'il y a des lan des passerelles et que je suis modestement le meilleur profil. nga profil yi baax yaa ngi fi de. parce que Abdourahmane Diouf dafa wax nag. nee na nag wax fa dëgg. ci mentalité <laughs> si mentalité ak jàpp ne moom nag moom mooy héritier wu Idi. Hmm. du doonay Idi. xaw ma nag lu wax lu tax mu wax loolu daf koo nawloowul am déet. ah déet mënul nekk calife à la place du calife. nee na moom mooy profil bu baax bi Abdourahmane Diouf jamono joojee da jàppale ne sa box pub li ñu ngi ko doon waxtaanee sànk sa kayaar. Euh, en tout cas coow li fay na waaye ndax xal bi fay na est-ce que nag xal bi dafa gëmm rek. doom bi nekk ci kawam nee nañ la braise couvre toujours sous la cendre nay leer Guet Ndar fu mu nekk nii ñoom seen xol bi ba léegi li ci nekk dañagu ci seen xol bi li ci nekk ba léegi dañagu si ndax nee nañu faw yoon def liggéeyam nañu jéggalante seen doom moo ca faatu hmm. anam nga mu faatoo metti na leen bu ñu yem rek ci waxtaanee mars si gil ndi gàll si gis a wàll génn koppar joxe nañ yoon def liggéeyam loolu la ñu bëgg en tout cas Mansour Faye dalal na leen dalal na seen xel nee na leen na seen xel daal bu dee warul jàppale rek état bi dina leen jàppale ba ngeen xam ne jàppale na leen te si lu yàggul dara nag li ci kanam kenn euh, euh, maanaam li ci kanam raw li gën synergie républicaine tap sur la table et menace Mohamed Diagne et ses partisans disent avoir honoré tout leur engagement donc lépp lu ñu waxante woon ax lépp lu leen waroon seen diggante ci biir benn bokk yaakaar daanaka ñoom def nañu ko matal nañu ko sëkk nag ñoom niñ leen soofantalee te néewal leen ci boppam loolu ci boppam lañ mënta nangu nee nañ mënuñu nangu loolu nay leer Anilou Odia wax. donc dafa gësëm ànd gësëm. gësëm dafa ànd gësëm. Walf ñëw nañ ndeysaan. Ibrahima Sène oh, euh, en tout cas. Euh, ñàkk nañu. Oh. waa gauche ñàkk nañu seen droite. en tout cas koo xam ne nii ku ñu ràññee woo la woon ci biir euh, PIT ñoom les gauches ñu jàll ci anañu ndeysaan waa ji nee na il n'est pas ne suis pas neutre. ah waaw. te ñan la tontu loolu mooy waa pouvoir nguur gi. nee na man je ne suis pas neutre. Oma Diakité dafa ñëw ci jamono ji nga xam ne euh, borom xorom Assane Diouf ñu ngi koy cuisiner fii. ñu ngi koy togg moom ñu ngi koy togg ca biir. gars yi di ko euh, laaj muy tontu nee na vidéo boobu ñu gis vidéo bu yàgg la tàngal ceeb la du vidéo bu bees. ba tey ay waxam la jamono joojee nee nañ saagakat yu mag yaa ngi ci biti. ak defkat yu mag yaa ngi si biti moom ñu jël ko di ko cuisiner fee kii mooy 10 000 mi ngi nii ci wet ga kure Kouramaki borom gën Kaliphone ëgën Kaliphone a ngi nii borom dof ndey ñoo nekk nii nee na jamono jii nga xam ne ñii ñi ngi nekk si biti di def lu leen neex di saaga ku mu leen neex ñu jël Assane Diouf boroom xorom si di ko cuisiner en tout cas loolu la actualité bi joxe maanaam deux pois deux mesures bi nga xam ne moom am na ñu koy dénoncé ba léegi bokk na ci li gën a fës ci euh, xibaar yi drame bi am fële ci village wu Ndagaj euh, ci commune Ndig Ngidi la euh, dans le département de Louga. mu di ab accident bu nga xam ne benn ouvrier buy liggéey ci benn entreprise bu nga xam ne dafay tub suuf sa diwaanu Louga loole démb ci ngoon la woon en tout cas suuf sa moo màbb ci kawam biñ koy jéem a dindi sa la ñàkk bakkenam laata nag euh, nag euh, ña koy wallu daanaka di ñëw daañu ci àndax Galaye Silla sa diwaanu Louga sunu correspondant ci ay leeral ñu waxtaanee ko révision exceptionnelle jëm ci mbindu meex saytu gi ci liste électorale yi coordonnateur bu pôle parti non aligné ni ak tiitaangi la am ndax xelam teey na lool jëm ci commission administrative yi nga xam ne taxawal nañu ko te nag euh, taxu koo bari ba noppi diir bi gàtt na lool Déthié Faye euh, ju euh, Déthié Faye gis ne kon commission gi daanaka matul kon nag faw ñu xoolaat nees mën a def ba yokk li nga xam ne moom mooy diir gi ñu waxtaane kon ndongo yi nga xam ne xale yu jigéen lañ di jàng ba noppi it wan na lor en mu ngay bëgg bari ci inspection d'académie bu Pikine ñi nga yëkkati téeméer ci ay jànq ay xale yu jigéen yu doon jàng dañoo wan noon lor te jamono ji nga xam ne école ñu ngi ci ba léegi am na ñaar fukk yi nga xam ne jot nañu ko wàññ fédération des syndicats de santé ñoom nag seen xeex bi dañu koy tegandi ci suuf ngir nag mën a wéyal waxtaan wi waaye terewul ñeneen dañuy wéyal di coté programme de santé yi nga xam ne daanaka ñu ngi koy amal dañu koy boycotter loolee la ñu saa toftal jeexalee ko yéen i kaay xëy dëkk ñax mantulaay ci bundooy ngeen taaxir lu ñu xuus si faram fàcce gi ànd seex si moo fay Mystic News. aywa Ba Fallé bon rebonjour nuyu naa la.